léegi naka lañ ko mën a liggéey ba mu tàlli ni ñaar ba mel ni terrain football ah ñu bëgg ñu fi jëlee yóbbu ñu beneen côté jël ay yeneen sénégalais jox ko. maanaam dañuy si biir bi si biir pôle bi fan mooy si biir pôle bi 7000 hectares fan la fan la fan la ñuy jox ba tey mënuñu situé nañu fii la mais kon président joxoon nañu ak yërmandem ba bindal lettre jox suñu maire suñu maire nañu ah yërmande ñëw na ndaxte gannaaw président lettre ma ngi nii. jox na leen fii assiette bi si biir Tivaouane Peulh 20 hectares ñu ànd ak service compétent yëpp ñëw tànnal ñu ko ba implanté ñu ne mi ngi nii yaa ngi dégg ñu sant ñu nañ pour ko defar ñu defar ko ba mu tàlli ñeret ba mu laaj di borne ak dëkk ñu bëgg ñu fiy jële pour pour ko ñeneen doomu aadama loolu pour lan Mame Boye Diao ma ko mi ngi image yi ku ko soxla mi ngi si télé bi directeur des impôts du n'importe qui moo waa victime Tivaouane Peulh jox nañ leen vingt ci assiette boo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi si biir léegi nak loolu sax doyulen d'ailleurs ñuy xol à côté leneen li ñu doon jox pour ñu dolé ko moo ko wax image yeng fi fen hein léegi nak à notre grande surprise ñu bëgg ñu fee jëlé ah pour tekku yeneen doom aadama pour lan ay sénégalais dafa am ñaar sénégalais ño bokk ben carte d'identité bi ñu yor di ay citoyens ni ñëpp lenn mo fi nekk ay lobby yo xamni ñi ñu ngi si ginnaaw bu ko jël fi pour jaay ko ñun ñu né wo way ay badol lañ parce que gis ngeen mais ay gor ay gor pire fi nekk hein ay ñu daan seen doole jënd fi ñoo fi nekk alaal nag moom yàllaa koy joxe mais ñi ngi ak suñu ngor ak suñuy 400 ak suñuy 100000 francs noonu lañ fas yéene dëkk même bu ñuy braak sax ñu braak fii président yow la ñuy waxal ndax ku fi falu fii yaa ko fal waaye ñun ñu ñoo la fal ñun yow la ñuy ñaan 20 hectares yi xam ne ñoo ko defar la ñu bëgg nga jox ñu ko immédiatement ñun ñu dëkk ndax nawet bee ngi ñëw.